ak ci say xéewal ak ci sa wér te ñu dajeeg ngërëmul sun borom àdduna ak alaaxira ci barkeb Cheikhul Xadim di leen ndokkeelaat bu baax ci safarul xayr mooy weeru tedd bi nga xam ne ni moom la Sëriñ waa waxee woon ne xarajtu ma sabti rabi'a safar li xidmatil muxtaari fi shahri safar ci la génne woon ci këram googee ci mbakki baari liggéey yàlla ak bi liggéey bu sun borom tabaaraka wa taala nangu kero ba muy génn ba mu ñaanalee Cheikh Moustapha ak seex Cheikh Mamadou Fadal ma dox ay jéego dafa taxaw awaat leen ñu ñëw mën fii ma taxaw de suñu borom laaj ne ma ne ma loo bëgg ma ne ko lépp mu ne ma jox naa la lépp kon kooku bu ko neexoon wàññeeku ndax amoon na lépp waaye nag mottali jaayante gam jaayanteeg boromam jaayante ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ak xam ne bu génnee darajaat yu baree bari moo yokk ci moom ak ramm gim ñuy moo tax mu génn te moo ko bindal boppam ne sababu xaybati ya ann allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi looloo tax ñun ak cant war nu ci cant goo xam ne nii lott nañ ci ak luñ mën a def rek lott nañ ci xanaa dañuy def liñ mën jéem li nu mënut te yéene ko ndax ku la defal lépp bu la sant lu dul lenn boo des goro war ko koo defal te Sëriñ Tuubaa moo ñu defal lépp te liggéeyub cant rek lañu masa woo te xéewal yooyu ba tey ñun ñoo koy xéewoo ci ñun la jëm moo tax mun ne cant ak boppam doyu ko ci woo ci nag ni koo xam ne ni mbégam si mbég la ñun mbégum Sëriñ Tuubaa mooy sunu mbég kon nag ñun ñëpp war nañ cee góorgóorlu te sant day ndigalu suñu borom ci alxuraan ñëw na ci miraaran fazkuruni askurkum washkuru li wala takfurun te lim ci digg kat mooy ndollan kon màggal gi du jural kenn lu yokkute yokkuteg jàmm ak xéewal ndax moo ne la in shakartum la azidannakum te suñu borom lu mu wax dana ko def inna allaha la yuxlifu l-miiaad ñun waa daara Hikmatul Yawmi nag sunu bàkk mooy jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante jamhiyatu Hikmatul Yawmi li tarbiyati wa tadaamun ijtimaa'i waaye nag loolu yi day ñaanu ko Sëriñ Tuubaa gu nangoo ci nun nañ ko ko santee bu wér-wér ndax Sëriñ Tuubaa moo ñaan murid yi mel ni ay xorondom ci bennoo ak bëggante ak soppante xorondom néew na nga nga gis ci wenn wuy dox saaboo boo gisee rek dafa ay bokkam dañ koo réer boo demee fa ñuy yóbbu itam ay ton fa nekk bu ko ay nit doon roñ sax danañ sonn waxuma laak nag lu toll ni xorondom waaye bennoo guñ bennoo tax ak ñàkk sonn gu ñu ñàkk sonn ci ngir pas-pas tax na kenn fu nekk wenn lay gàddu ñu ñuy doon wenn say di ànd di yëkkatee ndoo di tegandoo moo tax sëñ Tuubaa ne yaa rabbi ja'alil muridina maa fii isnaka al asina ànd googu ñu ànd nag di dajale sunuy benn ak sunuy ñaar di ko liggéeyale Serigne moo indi liggéey bi fii mu toll. ci la daara ji soso daara ji nekk Thiès nga xam ne ne lu ëpp juróom-ñaar fukki dongaa nga fa te matagul at loola lañ cey déggee mooy nañ yokk sunuy jéego ba mu doon ay daara ba daj réew mi ba génn réew mi ndax loolu mooy sunu def waaye màggal gi dañoo yor dañoo ñor lool te yitteel nu tax na daaw am na taxawaay yuñ ci defoon suñu stand bi ñu amoon buntu kër Serigne Fallou mu jàkkaarloog jumaa ji tant bañ fa amoon. te defoon fa yu am solo ci ay taraanga ay bernde ndekkeeg añ ak reer ak i boisson ki fruits ak i naan ngir jagleel ko gani Serigne Touba yi rawatina néew ji doole yi ak woy laago yi nga xam ne ni mën na seen bopp lu bari te te daaw ñu defoon fa yu am solo ren dañ ko bëgg a yokk lu ñu defoon daaw benn dañ ko bëgg a def ren junni ba tax na amaat nañ fa beneen stand boo xam ne nii mat na bu daaw ba ñeenti yoon mu nekkaat ba tey ci buntu ko sëriñ Fallou jàkkaarloog jumaa ji ñuy ñaan mbokk yi rikk a ah, lu baax daal kenn ku nekk lu ñëw fexeel ba sànni ci dara te taraanga yi gani sëriñ Tuubaa yi lañ ko jox te sëriñ Tuubaa day wax ne benn tib benn tibu ñam la wax de nga dugal ko ci biirub jullit bu xiif moo gën tabax junniy juma wa luqmatan tashuddu batnal jaa'ihi afdalu min binaayi alfa jaami'i waaw naka nag nga jël ay xéewal yow berndeelee ko gan ganuk sëriñ Tuubaa loola kon la nga cee amee yàlla rek moo xam na mu toll kon lu ca waay joxe des na ko ca defal moo xam ab dërëm la moo xam milliard la ku ci bëgg def dara nga jokkoo ak sëriñ Bara mi jiite social ci numéro 77 908 16 76. waaye sëriñ Omar Diarra mi nga xam ne itam mooy nekk ci tànt ba te nekkoon fa daaw moo fay nekk ren incha allah 24 heures sur 24 ku bëgg a jot sa carte membre boo wecc ko woon te jotagoo ca wala nga bëgg a wecc ko membre bu yees wala nga bëgg a wecc ko carte wala nga bëgg a def dara ba moo xam da jënd mbuusug ndox. wala say beña wala ay bernde wala sa weccer boo fa def dara du ci génn màggal gi des na ko jox gan ñi incha allah nga jokkoo ak moom ci 77 712 44 71. di sant mbokk yi bu baax nag ndax waa waa Hikmatul Yawmi lépp lu ñu yëkkati gis nañ mbokk yi niñ ci xéree ba dem ba ci mujj mbaar mi doon euh, euh, soññee ngir di ko yokkee daara ji ñaari million million la waaye ay fan lañ ko woote mat na ba ëpp maa ngi koy waxaat mbaar ma mat lu ñu waaye joxati fan yi ci màggal gi lañ koy def wala ñu defaat ko ci daara ji waaye mbaar ma mat bu buñ amaatee beneen projet boo xam ne ni milliard la sax dees na ko wax ndax xam nañ ne buñ ko waxee dana fajo fa suñu yéenee wàcc itam nag wax bu rabbaka xataa yaatiyaka yaqin ab jullit li fekk mi ngi dund du wàcc rawatina taalibeb sëriñ Tuubaa loolu lépp nag sàkk ngërëmul sëriñ Tuubaa lañ ci jublu te ngërëmul sëriñ Tuubaa mooy ngërëmul yonent bi te ngërëmul yonent bi mooy ngërëmul suñu borom te ngërëmul suñu borom moo gën a rëy lu dul moom wa ridwaanu minallaahi akbar lépp it ñu teg ko ci ndigal ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha hafizahullah wara yàlla fi yàgg lool te wér ndax Sëñ Bay Jaxate day wax ne lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab sëriñ du bëgg nit ba fab njariñ jox ko te toppul ndigalam boo bëggatee ci sab sëriñ lenn njariñ jox koy njariñ sëriñ ku koy joxe njariñ mu di la jox ay njariñam bul jaay sa bopp bu ko ndax xamal ne kat dee fa la jox lu dul li ngay def ak a wax ak dëgg daala am xorom kon ñoo ngi soññaat sunu bopp di soññaat mbokk taali bi yëpp ci màggal gi rikk waaye lu waay am na ko ci def suñu cant bopp it ñoo ngi koy sant mbokk yëpp ndax kat jóg laxasaayu di liggéeyal Serigne Touba te saa boo geesoo gis taalibe Serigne yu dëggal yi ñu wër la wet gune ne loolu sedd na ab xol te dal nam xel te kat taalibe Serigne Touba yu dëggal yi waxtu wu nekk ñu ngi ànd ak ñun te Sëñ Abdou Lahad dafa waxoon ne. Eh, ku defal sëriñ Touba murid yee lay fay waaye ku defal murid yi Serigne Touba lay fay moo tax nag kon képp ku nekk ci liggéey boo xam ne yaa ngi koy askanalee Serigne Touba te di ci gis ak dégg waxtu wu nekk taalibe yi Serigne yu dëggal yi war ngaa xam ne loola dëgg la. taalibe yi taalibe yi Serigne Touba yi de mënees na leen a nax ci sëriñ bi loolu de lu yomb la waaye nax yu gàtt lay doon de du yàgg de te lii de at yii yëpp ñoo ngi ci te day yokk waxtu wu nekk kon nag loola ñoo ngi yëkkati sunu cant bopp di ko jagleel mbokk yëpp. bàyyiwuñu kenn di sant mbokk yi yi nga xam ne jàppale woon nañu ci liggéeyu mbaar mi mën nañoo tudd ñëpp waaye am na ñoo xam ne taamuwuñ ko waaye nag rawatina group yi nga xam ne ñoom dañoo ànd doon mbooloo muy waa Safinatoul Aman bëgg Sëriñ Tuubaa waa Mbàmbu ca kanam waa Lim Jàmm waa Wakaana Xaqan waa Fathul Xafaar euh, waa Café Touba Bagdad waa Touba Rimini waa Fawzayni Thiès daayir Fawzayni Thiès ak waa Famille Tallen ak mbooleem mbooloo yi nga xam ne ni dañoo àndandoo def seen dara ci mbaar mi ak benn benn nit yi nga xam ne nii nit day yëkkati sax juróom fukki junni wala ñeen fukki junni wala ñaar fukki junni joxe ko ne bu ma kenn tudd loolu moo tax rek ñu tudd groupe yi wala daayira yi nga xam ñoom mbooloo lañ ñu jagleel leen euh, tur yi waaye ñëpp lañu sant ku ci defoon ab dërëmam ñëpp lañ yemale sant nañ ñëpp jërë ngeen jëf euh, ku ci bëgg a def dara wala nga bëgg ci xam dara wala nga bëgg cee doon dara nga woote ci 77 633 77 56 nag day tënku yaa koy tënki ngir jariñoo ci rajo day sekki moo tax mën a la te wuy balaa jariñ nga toj ko jot ci buy ba buy baa jariñ kon wuy wi ñëw na gaañi leen toj ko bañ mën jot ci buy bi ñëpp tiim ko ñii màcc ñii notari ñii njambaan ko ku féete woon naa seggal ko in uridu illa al islaha mastataxta ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa